C'est international. Sénéfo international. abonné leen ci suñu YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi jiital xalifa généraux yi commencé ko ci sëriñ Maay Ibrahima Niass mu jot li ko ñëpp ci Kaolack ak ci Sénégal di rafet lu tey taxawaay bi nga xam ne nii waa gaw Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ay doomam ñëw nañ ci bis bi jëmmal ko taxawal ko comme ni ko Ibrahima Thiam waxee fukki at a ngi ni ñu di ko def waaye tey jii gis nañ ne am na différence bu mag ci jëmbal bi nga xam ne nii Baye mbay ñëw na ànd ko Cheikh Bachir ànd ko ak njabootu Baye yépp ñëw taxaw teeru gan ñi ndax ñii buñ toogee waxtu lu mat ay waxtu lu mat fukki waxtu ci géej gi buñ ñëwee fekk fi njabootu baay seen xel dana dal di gërëm bu baax taxawaay bi nga xam ne autorités yi taxaw nañ ko fi muy gouverneur muy ministère bi nga xam ne nii gilet yii ñu yor yëpp ñoom ñoo ñu ko jox ñu yóbbu ko la bay andi leen ko di gërëm tamit comité d'organisation bi ñi nga xam ne nii sunu a ah, Serigne Sass Mbaye ah. Issa Ba moo ko jiite nga xam ne nii depuis daaw ba ren mi ngi liggéey di gërëm ah vice président chambre de commerce Fallou Ba mi ànd man ak Ablaye Thiam ak ñi mu àndal ñëpp ñoom tamit fi lañ fanaan fanaan bi ak at at yi yëpp. lii nag dafa war a joxe benn exemple boo xam ne nii ci kawlak ñëpp xam nañ ne. cheikhul islam yàlla fay na ko lim doon sonn di fu ne mu teg fa tànkam ndax iil buñ teyee tey ñoom ñuy ñëw di dugg ci ay gaal yi di ñëw dañuy fay bàyyi rek ndax bàyyi di daan déplacé wu di dem ba foofu tey bàyyi mbaye ngi nii moom tamit ba léegi dafa don topp ci ta tàn tànk waajuram di ko def looloo tax mu ñor ko ba tey mu ñëw ànd ak jël gaal dem ba ci biir teeru leen ci biir géej gi ànd ak ñoom ñëw kon nag ñun ñëpp nañ ci jàngat xam ne doomu aadama li nga mën a am rek mooy lu njariñ nit ñi ah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko moom mooy xayrukum anfa'ukum linnaasi yéen ku gën ci yéen mooy ku leen ëppal njariñ nit ñi lii nag nañ ko def événement bu mag bala moo nekk événement international ndax international lay masa dooni waa Kaolack ku ci jëlul nga taxaw ci da nga mujj taxaw ñeneen jële bitim réew nangu ko ci yow ba nga xam ne nii ah dañ ciy wéet kon nag duutu événement chambre de commerce duutu événement Serigne Boub événement Sénégal la événement international la ci barkeb Cheikhul Islam ah Maolana Cheikh Ibrahima Niass kon nag maa ngi gërëm ñëpp di dalal gan ñi di leen ñaanal li nga xam ni moom lañ fi wut si yàlla def mu soppiku di wax rek ci côté gouvernement bi liñ def baax na waaye nag nañ gën a mën a góorgóorlu ci pooru Kaolack pooru Kaolack bii nit ki bala ngaa xam sa bopp dangay ngay xeet histoire pooru Kaolack moo andi Kaolack Kaolack avant poor bi dëkku Kaolack amul woon pooru Kaolack moo tax moo fi andi ñi fi ñëw ñëpp moo fi andi lew na ñaseen moo fi andi euh, euh, kaneen moo fi andi ñolofeen moo fi andi Touba moo fi andi euh, nangaan port bi moo fi andi lépp nañ ko dundalaat buñ ko dundalaatee àdduna bi yëpp danañ fi daje. barke dem dañoo dem Dubaay ñëpp di émerveillé wu ci li xew Dubaay ma ne leen man li xew Dubaay ah ndax mën nañ ko ba ñuy am li xew Dubaay 1960 wala 1922 Dubaay doo ñëw fekk fi ab tabax doo fi ñëw fekk fi gaal guy taxaw kon nag bu ñu yàlla mayee dara nañ ko toppatoo. ah zalika bi anna laa lam yakun mu xayiran ni'matan an'amahaa alaa qawmin hattaa yuxayyiru maa bi anfusihim yàlla du soppi xéewal bu ñu jox lu dul ñun ñu soppi ko buñ soppi ko Kaolack dana nekk ca kanam ni ko sëñ Fall waxoon waxe woon Kaolack ca kaw bàyyi daan jël xalimaam bi di ci signé El Hadj Ibrahima Niass al Kaolack yi buñ ci jàppee ñun ñëpp rek incha allah Kaolack dana dellu fa mu nekkoon maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp wa salaamaaleykum.